suñu borom moo ko jëlee ca borom ma ne bu seen kilifa yi teewee bu leen yëg bu leen yëg si seen i kàddu muy féete kaw seen i kàddu moo ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon saxaaba yi ci yonent bi te ñun moom Mbàkke li maam Serigne Fall waxoon te Tuubaa ne ko Kaaba gi jullit yi suñu jublu di fa julli dañuy am yéene ngir àgg ca Kaaba ga daal koy wax ne ko ah, Serigne Touba. te itam gisuñ koo koo koo mel ni bor ka ko wuutu nga war a fay bor ba te gisuñu gisuñu yonent bi kon bor bor ko julli ñu war a fay muy boru topp mu ne Sëriñ Tuubaa lañ ko war a fay mu ne julli yëpp dañoo am amee nañu boru topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne nag te itam gisuñu yonent bi sallallahu alayhi ki fi nekkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Xaadimu Rasuul mu ne boru topp boobu yi moom lañ ko war a jox kon nag Mbàkke ah yéene suñuy sang tey ak ëllëg duñu duñu duñu amul amuñu lenn ndax maam Cheikh Ibra ci tënk bu gàtt Serigne Touba da ko wax ne ko ci waxtaanu Murid Saadix nga xam ne sëñ Modou Abdoulaye Fall moo ko bind téere boobu dajale ci ay waxi maam Cheikh Ibra Fall ba muy ñeent fukki wax muy da koy barkeeloo ci moxtaaru hadis da ci am wax joo xam ne waxtaan boo xam ne wax ne Serigne Touba dafa toog maam mu ne ko Ibrahima mu ne ko mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa borom nee na di sunu borom nga wax li nga gën a bëgg tey ñu defal la ko nee na tey sa bët bi lu mu tege loolu yaa ko moom mu ne ko nee nee neel sa borom yow neel sa boroom yow nee ko nanu dimbalee ba suñ bët bii bu mu gis dara lu dul yow nañu wëlbati suñu bari bët yi ba buñ gis dara lu lu yow kon loolu mbàkke ñun ñu ñi ñu ngi ci yooyu ñu ngi ci yéen ci loolu la nekk fu nu fu fu ñu mën ko daal foofu la ne nun daal noog bosol yi ñuy xoole penk bi ñoo ñoo yem àtte ñun daal fu ñu wëndeele rek ñu del ñu del suwaat ci yéen rek waaw su suñ matadi yi ak suñ rëcc-rëcc yi ak suñ sàggante yi yépp dee dee leen ko jàppee ay ay baax baax si ñun rek waaw nga xam ne lu baax rek lépp lu ñu def muy am rëcc rëcc rek lu baax lañ jubloo def ci yéen lu baax rek la ñuy sàkku ci yéen tey ak ëllëg waaw ñun amuñu nekkunu ñu ngi ci biir Sëñ Tuubaa rek ñu ci biir maam Seraay rek ndax maam Seex Ibra eh, bu dee suuf ci Sénégal territoire du Sénégal ci jamonoy colonialiste bi ñu xoolee suuf si nee nañu am nañ ci cinq pour cent ci suuf si yëpp te lépp da ko titre foncier li nekk ay permis occupé eh, yenn yi nekk ay bàyyi mu mu valoriser ko ba ci fii ci tubaab tubaab Fall fii fii bi nga tàmbalee tubaab Fall ba ba nga dem Njaareem lu ci ëpp ci moomeelam la dugg li nga tàmbalee euh, Thiès ba ba ngay dem Ndar lu ci ëpp ci moomeelam la dugg la nga tàmbalee Thiès ba ba ngay dem Ndakaaru lu ci ëpp ba Tëngéej ba ba ngay del seen Mbàkke Bawol gi ëpp ci moomeelam la dugg lépp daw utali ba ba ngay dem ba ba ngay eggaat Ndar waaye dafa wax ne lépp ngir fàggu liggéey sëñ Touba rek mu ne moom soxlawul dara bëggul dara lépp Sëñ Tuubaa la koy fàggul kon nag Mbàkke nun noo ngi seeni ron liggéey bi nga xam ne Mbàkke man maa ko sàkku Imaam Moussa dinaa ñëw ci yow nuyu la nuyu Sëñ Talla ma noppee maa ngi jéggulu ndax wax nga léegi suñu borom nee na nañ leen gaawantoo sàkku aw yiw ak njëggal aaye boobu ci laa sukkandiku ba sàkku ndigal li ci sëriñ Basiru mi keroog bi ma bi ñu jógee cérémonie bii ci euh, euh, Daaru Manaan ba mu ñëw ba dugg ci biir ba woo ma ba ñaanal ma ma génnaa ba tollu penc mii laa am sama lisaanu xaal ak sama yëg sama yëg-yëg ne na jàkk-jàkk ji ma ne jàkk jigéen dañ ko war liggéeyal sëñ Touba ma duggaa ma woo mu sekk mi ma àndal ma ne ko wax sëñ Abo Gueye sëñ Abo dugg fekk sëñ bi di sëñ bi di julli timis mu ne ko mun ne ko dem leen ba sëñ bi génnee dina leen wax sëñ bi ci yoon yoonu lañuy ñu ne ma am nga ci xaalis suñ tubaa dañu ngi xaalis suñ tubaa te ñun xaalis suñ tubaa la ñuy wut mu na ma waaye nga may ma ma wax ma wax ko sama kilifa Seex Muntaxa bisu àllarba bi mu àllarba kere te mujj ci weer bi ci timis la sëñ bi woolu ak sëñ ñëw mu yóbbu ma ba Seex Muntaxa sëñ bi téye sama yoxo ñaanal ma ne ma liggéey bii kat sëñ tubaa nga koy liggéeyal sëriñ Bass wax na ma lépp waaye sëriñ tubaa na ne bind moom ngeen koy liggéeyal te di ngeen ci am ngërëmam te ñun ngërëmu Sëriñ Tuubaa la ñuy wut Mbàkke nag maa sama kilifa yi tedd yi Sëriñ Mor Talla Fall xalifa Sëriñ Ablaye Fall Ndar ak seeni rakk ak ak mboolem kër Sëriñ Ablaye Fall Ndar seen bunt muy Sëriñ Mor Abdoulaye seen jëwriñ doonoon seen mag àndoon ñoom lépp dem bàyyi fi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi nu fi ak ñoom nu leen Mbàkke yi xañtu liggéeyal leen rek ba ma ko waxee sëriñ Cheikh jëmb ba ma ko waxee mu ne man mii nga koy defal kon loolu nañ ko xam sëriñ seex jëmb ndax ñun fa suñu yéen def lenn lu jooyoo ak ndigal ndax sëriñ Tuubaa noonu dafay tënk yoon wi ci ndigal nee laa tafaru seen bi xëy na looy def na nga laaj ndigalu sëriñ bi maam Cheikh Fall na waxoon na ne ndigal des na ko laaj ab taalibe dina sàkku ndigal ci sëriñam ngir sëñ bi ndax mën naa la yëkkati sàkket bi mun na waawaaw nga yëkkati ko ah sëñ bi ndax mën naa la taxandale nga ne ko waawaaw mu dem waaye maam seex nee na lu ëpp lu ma naa defal sëñ Tuubaa nee dama daan dàkk ak bëggam nee dama koy def ba eggal rawatina bi ma nekk daara ji tarbiya damay sàkket fenn wala ma def am ni beggal wala am mbaar bu sëriñ bi jullee ba noppi li neen sëñ Tuubaa nag foo ko waaye lu ko am sa defal muy kër muy leneen neen julli fi njëkk a def nee boo ko fi jullee beggal ak koy woolu ne ko ak sa Ibra daje nga ci ak ak bëgg daje nga bëgg suñu borom ba su ba sëñ Tuubaa laa xool sëñ Cheikh Moudou ñëw foofu laa koy tënk jox kàddu gi ndax mooy rek kër gi waaye damaa damay sant rek sant la bokk ba sëñ Moustapha Mbacke ñëwee di wër mag ñi di wër mag ñi ba si maam Cheikh Ibra Fall mu ne ko alhamdulilah rabbil alamin dañu amoon sëñ Bamba moo xam ne dañ daan ak bëggam di ko defal te ñu ma bëgg waaye léegi dañu am sëñ Bamba moo xam ne dañoo xam ni bëgg te si sëñ Moustapha nee nga jumaa nga bëgg ak jàkka dañ koy ànd ak yow ci la jëlee sëñ mu Moustapha Fall jox ko jox ko sëñ Ablaye Fall Ndar ak mboolem sëñ Amdi Fall Mourou Mbenda ak mboolem njabootu maam Seeram Fall gépp kon ñun foofu la nekk Mbàkke euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi nuyu nag imaam Moussa Niang mi nga xam ne euh, day suñu wëllëre wu yàgg suñu xamee mi ngi sosoo Makkatul Mukarrama 2017 fa lañu nekk ba aj ba aj gi jeex mu woo ma ne ma ah man de sëñ bi ma sañoon xam la ndax ni ma la gis taxawaay bi ma ko waxee ne ko bokk ci kër maam Cheikh Ibra Fall mu ne nii nii rek la mën a demee mu nëbb boppam ma nëbb sama bopp ba liggéey ba sekkoon egg boobu léegi bàyyiwul kóllëre gi bàyyiwuma ko muy feddali diggante Siraaji Malick si ak maam Cheikh ca Ndar ndax ban loolu ay histoire andi na ko mag ñi nettali nañ ko ñoo bokkoon nekk Ndar boo ko nekk gén Ndar bokk lu bari muy fàttali diggante sëñ Ablaye Fall Ndar ak ma Abdou Aziz si ndax bàyyi sëriñ Gueye roq nee na sëñ Ablaye maa Abdou dafa jóge Faas ñëw sol sii la baraaya na mu jekk lool jóge Faas ñëw nee na mu mu ut si ñaar jox benn sol benn jox sëñ Ablaye Fall Ndar benn nee na ñuy doxantu ci kaw ci kaw defu ndar bi ci ci pont ndar bi tàkkusaan nee na fun jaar duñ leen mën a xàmmee ndax tolloo ak rafetaay ak niroo kon diggante bi diggante bu yàgg la imaam Moussa euh, ñu ngi lay sant ci turu njabootu maam Serigne Fall gépp ndax li nga def teewoon gépp nga dikkal ñépp nga teewal euh, ak sa délégation bi nga àndal yëpp euh, buñ sant sëñ Talla ba noppi ñu ñëw ci sëñ Moustapha Mbacke nga xam ne euh, way juróom ak Cheikh Modou Abdoulaye Fall day mu ne suñu woon a xàmmee sëñ Modou Abdoulaye damay nekk lu bari ci sa ci sëñ Alaaji Baara ak Sëriñ Fallu nee na sëñ Alaaji Baara nee na bi sëñ Abdoulaye Fall da nekkee Mbacke nee na subb bu ma saa day ñëw sëñ Abdoulaye Dara génne leen sëñ Alaaji Baara ci siisam bi mu teg ci wetam muy leen kat mooy sëñ Touba te booba nee na booba booba sëñ Fallou fi ne di ko yónni ci moom bu xëyee rek génn si ne tegal leen sëñ sëñ sañ sañ baara léegi bu ñëw ndax kat mooy mooy sëñ tubaa waaw kon loolu mbàkke yàgg na ñu ngi feddali kóllëre gi bu baax di yeesal suñ bopp ci yéen di sant nag jibi bamba saw mbàyyi ko ba mbaan bokk ci waa kër Cheikh Cheikh Sadibou sëñ Sidi Diop sa gan gi turki bi ñu ngi koy nuyu di ko di ko wax coog salaam coog salaam waaw <laughs> ah, di ko wax euh, ah ah Ibrahima noonu waaw coog salaam ndax Turquie ak Sénégal ak Touba am nañ ay ay ay ay ay kii ay ay jaxasoo yu bare bare bare bare bare kon nag dañuy jox sëñ Abdou Lahad kàddu gi rek ci turu euh, njabootu Cheikh Mour Abdoulaye gépp